bëree bëri ñoo ko ñoo ko topp mais la question principale mooy li ma laaj maam Birame sànq mooy wax bu jibee dañuy wax fan fan la jugee lan lan moo jur classe politique bi léegi euh, comme euh, defe naa c'est Colin Powell qui l'a qui a seen discours politique nekk benn discours boo xam ne discours bu destructeur la au lieu d'être un discours constructif. non je ne pense pas que mu nekk lool sax mais laata lool je hmm. euh, dama bëggoon leeral benn mbir parce que aussi y en a trop qui prennent mon n pour une serpillière. liñ may fii wax ci plateau bi diw sa baay la. Hmm. wala est-ce que du sa baay amul kenn kuñ ko fi sañ wax ci plateau bi. c'est vrai te yaakaar naa ni buñ ko fi waxoon keneen aussi dina am beneen réaction. donc euh, gàtt sa gàtt sa boobu boo moytu ci falaay mujj. ak ñu bëri <laughs> non mais mais xam nga aussi mënoo. ça ne ressemble pas Pape. à force di naan. Pape bàyyil bàyyil bàyyil. man dama wax ak yow euh, les plateaux ça moom c'est c'est je te le demande amicalement ne change pas. mais à force mooy indi mooy indi discours bu violent à force mooy indi discours bu violent mooy indi mooy indi comportement bu bu désobligeant. Euh, mais mais li ma li ma li ma bëgg li ma euh, tes excuses ne sont pas acceptées. li ma li ma li ma li ma li ma li ma bëgg wax ci discours bi en fait. alors euh, voilà li ma ci bëgg wax mooy Moustapha dañ koy contextualiser. Mm-hmm. parce que bu ñu nekkee ci Sénégal boo xamante ni maître yaakaar naa moo koy wax léegi place Soweto. Mm-hmm. Soweto mooy lan mooy benn banlieue bu nekk fële ca euh, lu mu tudd Afrique du Sud mhm. ay ndaw nekkoon ci benn école euh, wala ci ay école doon xeex parce que dañ jàppoon ni loi yu ñu tegoon foofu jamonoy apartheid nekkul loi yu baax mhm. bu Sénégal demee bay rendre hommage ñooñu nga xamante ni dañ doon xeex ba plus de 200 personnes ñàkk fa seen bakkan ba tuddal leen fa assemblée nekk tuddal leen fa ci buntu assemblée nationale bi ñu defal leen fa benn place mhm. war nañu mën a accepter aussi xeex dafa war a nekk ci li nga xamante ni moom mooy dundal démocratie bërki démb ba ñu defee fële pont ci côté euh, ci ci ci ci ci centre Sénégal. Hmm. dañ ko tuddee Nelson Nelson Mandela. Nelson Mandela combat la woon discours la woon. Hmm. te à un moment donné am na discours yoo xamante ni yu gën a virulent la woon yu gën a violent la woon ba ci Cabral bi nga xamante ni moo ñu gën a jege. Hmm. donc man duma ni relation yi moom moo changé mais tey dañuy xool rapport yi ñu am. Mm-hmm. est-ce que tey nekkaatuñu di dundal jamonoy nootaange. jamono est-ce que euh, jamono yi ñuy doon not comme comme comme apartheid wala jamono yi nga xam ne dañu doon dund comme colonisation. Mm-hmm. ñaata nit pour ay délits d'opinion ñu leen tëj ci kaso bi. ñaata nit ñi ngi leen di jël di leen wax nañ fi léegi Karim Wade xalifa Sall et tout ñuy dund ay injustices yoo xamante ni kenn mënu ko réparer. Mm-hmm. léegi bu sénégalais yi demee ba tool ci situation yooyu mais am nañu obligation ñu mën a répondre. parce que aussi bu ñu toogee seetaan seul euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk def lu leen neex mais fan nañu nar a mujj Mame Birame rappelé na ko léegi. Mhm. Ousmane Sonko bu nit ñi génnul woon mars boobu bu ñu ko tëjoon ci kasam ngeen defeen dina génn. ngeen defeen tey jii daañu toog di wax waxu ay meeting bi am na doole meeting bi amul doole. Mhm. tey daañu wax waxu Pastef wala daañu wax waxu troisième candidature boobaa président Macky nekk na buur bu yàgg ba ñu acté ko. donc je pense que ni am na yoo xamante ni dañu war a xool lan moo ko indi. li ko hmm. indi nag parce que dañuy naan euh, lu mu tudd tout arrivé en un départ. Hmm. arrivé bu ne am na départ départ bi mooy. Hmm. ki ñu jëlee ci li nga xamante ni mooy fonction publique doon liggéey. di dénoncer comme ni ko euh, lu mu tudd code euh, euh, code yi ñu mujj am code de transparence bu ñu mujjee am nu mu ko santaane parce que bi obligé les les su ñu gisee lu jubul ñu dénoncer ko. sinon complice nga. loolu la ko code de transparence santaane. Mhm. moom mu def loolu ñu jëlee ko foofu dàq ko mu dem créer parti politique am di dem nànk-nànk. nekk ci plus forest ba dem biir assemblée nationale assemblée nationale boobu ñu koy saaga kooku continuer di dem sénégalais yi commencé di ko déglu mu am benn légitimité am benn popularité nit ñi aussi am fu ñu ko teg. ñu commencé di ko teg ay ndëgg di ko teg ay ndëgg sërëx di ko teg ay ndëgg sërëx ba mujj ci benn dossier boo xamante ni ñëpp xam nañ ni sax nit da ngay am kersa pour nettali dossier bi lan moo ne ci biir mais kooku bu demee ba accepter que ni moom yàgg nay reculer mais dem na ba sës mais lu mu mën a def mooy faire face parce que bu deful face mais dañ koy liquider jàll Khalifa Sall mi doon jaay ay nit ku policier nit ku ku yaru nit ku républicain ku gëm ay valeur ak ku gëm ay yeneen ak yeneen Karim Wade mi jóge woon Maroc pour répondre ici à une convocation mais ñoom ñëpp dañ ko mujj regretter Karim Wade bañ koy woo convocation mii jóge Maroc di ñëw yaakaaroon na ni fii justice moom moo fi am Mhm. mais en fin de compte on oublie souvent Karim Wade bi ñu koy convoqué nekkul woon Sénégal. nekkul woon Sénégal en fin de compte léegi ñi nga xamante ne dañuy gëmoon institution yi gëmoon que ni réew mi réewu yoon la droit moom moo fi am ak démocratique yooyu noonu mais ñooñu ba ñu demee gis nañu lan ban soxla leen la leen la leen gars yi réservé hmm. donc est ce que moom Ousmane Sonko dafa doon dafa doon continuer di dem ci li nga xamante ni parce que en fait nax sa bopp la mais ñëpp xam nañ li nekk ci réew mi donc hmm. je pense que vraiment discours mënut a gën a violent li nga xamante ne mooy pratique yi fi am hmm. gis nañ fi ay policiers di jàpp suñu ay moromu yaay di leen duma ci géejuwaay bi manifestation boo xamante ni dañ doon xeex ci seen suuf yi gis nañ fi plusieurs fois ay nit ñoo xamante ne dañ maltraité dañuy def leneen ak leneen ba ci bërki dem nit dof mi nga xamante ni luñ ko teg moo gën a violent discours. ñëw ni dafay def première concert am show of the year nga ñëw annulé ko ni stade euh, Iba Mar Diop dafa màggat mu ñëwaat dafa war a defaat benn concert na nga xam ni foofu bu ko defee aussi nit ñi dinañ ko wuy ji.

mais sénégalais yu bari bëggoon nañ ñu dégg ci peut-être kan moo ñu génne ci situation bi. tey jii ni réew mi taxawee comment faire pour éviter la confrontation comment faire pour génn ci situation bi est-ce que am na quelqu'un ci réew mi xam ne mën na tàllal loxo gars yi ne leen jàpp leen fii ma yóbbu. peut-être euh, kilifa diine yi ñoom la ñuy interpeller à chaque fois te gis nañu également que ñoom euh, bi yoon aussi ku ci nekk mi ngi ciy wax. mais est-ce que seen appel aussi dina aboutir loolu moom euh, parce que boo xoolee euh, la tension comme elle euh, sociale bi ni mu tenduwee mhm. ça va être difficile mais bon de nit ku nekk dafay espérer ak di ñaan rek ndax ñi nga xamante ni ñooy kilifa diine yi ñu addu ci mais mhm. également ñaari camp yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk nii actuellement di regarder en comme comme des chiens de faïence je pense que nii il faut que ku ci nekk lâcher du lest mais lâcher du lest boobu jeune ne pense pas parce que am na ci ñoo xam ne ils sont dañoo gën a radical mm-hmm. état aussi taxawee ne léegi nag il est prêt il est prêt ñee aussi nee nañu ils sont prêts seen ay def nañu seen ay testament et tout ça bon tey jii aussi ñu gis ni jeunes yu bëri dañoo déterminé wu mm-hmm. jeunes yu bëri déterminé wu nañu mais la question qui se pose mooy est-ce que dinañu mën a affronter ak ñi nga xamante tamit état la ko qu'on puisse dire. ñooy am na doole ñoo yor force de défense et de sécurité yi te yaakaar naa ne également euh, moyens yi ñu am. Mhm. est-ce que tamit euh, le camp beneen camp adverse bi am na ko mais dañuy ñaan bañ egg foofu yëpp parce que su boobaa. il est vrai il yoo xamante ni ñoo nekk mais benn Sénégal la mhm. ñeen ñun rek la ñu ni neen la kuñ ci gaañ wala kuñ ci également def lenn loo xamante ni lu metti la ñun day retombé ci ñun Mhm. mais non il faut dépassionner mais dépassionner. dépassionner c'est ça loolu est-ce que est-ce que ce sera possible parce que tey jii bu fekkee Ousmane Sonko ak Adji Sarr ni ñu ko waxee ñaari citoyen la ñu wax lañuy yóbbu ci kanamu yoon. Mhm. ñii ne c'est politique dossier bi dañ ko politiser ñeneen ñi commencé également daal ni waaw dañ ko politiser euh, comme li massa li waxoon la fois dernière ñoom ñoo wax que nañ ko politiser. Mhm. donc kan moo nar a tey jii état bu reculer dinañu ne est-ce que état ci boppam dina ne moom est-ce que war na reculer wala opposition mais en tout cas. Mhm. il faut que pour dépassionner du ni mel tension yi yëpp ñu wàcceeku ci suuf parce que. Mhm. li fi nar a xew. boo moytul mu ëpp li nga xamante ni moom moo fi xawoon en mars te mhm. ñaanuñu yàlla egg ba foofu. jàmm réew mi sax jar na les uns et les autres ku nekk reculer alors Pape en une minute. vraiment parce que dañ non non une minute dañ bëgg non dama déjà na. dañuy avancer parce que li ñu yore dafa bëri mais mais est que est-ce que quelque part euh, nekkul erreuru Macky Sall dès mu falu lépp war a nekk voix discordante ci réew mi mu jël ko taf ci kaw taf ci kawam je veux dire amatul journaliste yi nga xam ne ñoo doon dénoncer yenn yi du temps de Wade mu yóbbu ci kawam les personnalités de la société civile yi fi nekkoon nga xam ne ñoo daan dox ci diggante yeeg yooyu. ñenn ñi mu jox ay poste ñeneen ñi ñu jox ay ay teranga kenn déggatu leen est-ce que finalement loolu demul ba euh, euh, li Ramataay wax ñu ñu mu mu épouser mu jur boog une classe politique boo xam ne